macha allah di wax li nga xamante ni loolu la Sénégal yi bëgg a dégg ba tax na tey ma indiwaat ko muy ki nga xamante ni moom moo di imam Mbacké Sylla imam nag moom nekk xaritu Sénégal yi <laughs> mun naa ko wax voilà ba tax na tey ma indilaat leen ko nag ñu nar a waxtaane lu ama am solo imaam nuyu naa la bàyyi la nga nuyu mbokk internet Dakar Plus yi lay seetaan jërëjëf soxna Fa maa ngi lay fay nuyoo di la nuyu di nuyu waa Dakar Plus yëpp di kontaan bu baax a baax ci seen liggéey di kontaan bu baax ci seen liggéey di am mbégte ci toog ak yow. macha allah am na solo alors imam xam naa sax tey li ma koy commencé mooy que nga wax ma kan mooy imam parce que d'habitude dañuy ñëw rek waxtaanee yow ci diine ji wala li nga xamante ni moom moo di actualité bi sans pour autant xam kan mooy imam. waaw loolu dañ kan mooy imam Mbacké Sylla lan nga ñu. jërëjëf xam naa li ngeen ci xam rek day liñ ci yokk du bari. mooy maa ngi tudd Mbacké Sylla ni nga ko xamee. Euh, di kenn ci pénc mi. di jàngalekatu alxuraan waaye di liggéey ci rajo Sud FM. Mhm. Euh, en tant que kuy waxtaan ci wàllu diine. Mhm. di def itam ay chronique ci émission yi nga xam ne moo fay am rawatina émission ndékki li yoo xam daa jëm ci actualité ak yi nga xam ne moo ci aju. Mhm. Euh, mën naa ko tënk daal kooku moom daal maay kooku rek. <laughs> <laughs> waaw <laughs> doon wax fan nga jàngee yooyu noonu. ah kay waaw bu ko jaree maa ngi jàngee alxuraan dëkk bu ñuy wax ci la. Mhm. ci la sama dëkkum maam la. boo demee ba kolobaan Gosaas boo ko xamee. te ba ngay jël jëm xel kom bu dee tëli bu njëkk ba fa sëñ Saaliwu defoon mu jëm jaabel tëli boobu ma ngay jaar ci pénc ma ci péncum dëkk boobee di cilla mooy dëkk bi nga xam ne falaa falaa dëkk mhm. dëkk booba itam falaa jànge alxuraanul karim mhm. bi ma fa jógee bi ma gannaaw bi ma jàngee alxuraan ba noppi maa ngi jàngee xam-xam njaareem euh, donc kër gu mag mhm. euh, bi ma fa jógee ci laa tàmbulee def ay émission ci RTS bu Jurbel euh, jóge fa def émission ci Sud bu Jurbel ci laa fa jógee bi Sud FM Jurbel tëjee ñëw Dakar ci yeneen i liggéey nag moom ma indi woon Dakar yu bokkut ak euh, liggéey ci média mm-hmm. waaye loolu sama passion la ma sa doon ci ndimbalul yàlla yàlla jaarale ko ci Oustaz Alioune Sall mm-hmm. ma duggaat fi nga xamante ne mooy rajo si FM bu Dakar loolu 2007 la woon boobu ba léegi maa nga fa mm-hmm. euh, comme ni ma ko waxee léegi d'accord dëkk fan waaw bu dee bu dee juddu moom maa ngi juddoo dëkk bu ñuy wax Sowal Fadiouth waaye nag waa Njaareem laa ndax samay maam ci ñi fekk si woon sëriñ bu mag bi Njaareem lañ bokk Eh, sëñ Touba dëkkal leen fa. bu dee ci sama wetuk yaay eh, sëriñ Mbacke Fall ko jur. Eh, yaayam tudd Soxna Maguette Lo bokk ci waa kër sëriñ ab Absa Lo. bu dee sama côté way jur wu góor mu tudd sëriñ Abdou Silla moom mu demoon Zowal. Euh, ndax liggéey loolu moo ñu fa yóbbu ba ñu juddoo fa waaye maa ngi fàttaliku dama koy wax lu bari sama baay daf ñu mas di wax ne mhm. ñun Joal dëkkuñu fi Jurbel lañu dëkk moo tax ñun ñu juddoo Joal sax sax Jurbel la ñu déclaré woon nga xamante ne fa la ñuy amee ay këyit mhm. euh, bi sama waajur bu euh, donc wu góor faatoo 1997 ci lañ ñibbisi fi nga xamante ne mooy njaareem jóge fi nga xam ne mooy Joal man bokk ndax samay mag ba léegi ña nga Joal ñi nga xam ne ñoom laa bokkal baay ñi ngi féete foofu waaye man ci laa ànd ak sama waaw xam naa parent yi de rapprochement bi moom maanaam kenn ki laa gën a jege muy sama yaay li ko waral mooy moom laa gën a dundal mhm. lu yàgg ndax bu fekkee sama baay la bi may fàttaliku ci sama ndaw li ma fàttaliku daara ja la tàmbulee maanaam ci la la fàttali la ta la fàttaliku tàmbulee li ko jiitu fàttalikuwuma ci dara ndax damaa teel a dem daara mhm. dama faa yàgg itam ndax bi ma fay jógee am naa lu mat fukki at ak juróom mhm, te diggante boobu yépp samay jur kenn ñëw fa maanaam sama yaay ñëwut ca daara ja li nga nekk si daara ji waaw sama baay ñëwut ca daara ja hmm? nga xam ne bi may gis sama baay mooy bis bi muy ñëw ci daara ja di ma jël si hmm. bi ma indee njaaree mi itam ma dem sama kër maam dañ maa wax ne ma ñiitoo ki mooy sa yaay ma xam ne kii mooy sama yaay moom itam mu xam ne kii mooy doomam ci at moomu génnuñu ko ci la sama baay faatu hmm. kon xam nga kon euh, doo ko miin ba jege ko lool waaye xamoon naa daal diir bi ma nekk ak moom diir bu gàtt ci mu nekk nit koo xamante ne ab taalibe la bëgg sëñ Tuubaa lool ba yemalewu koog dara bëgg xaside yi lool ba yemalewu koog dara mm-hmm. daan ñu toqantal nag ki lépp loo xamante ne lu baax la maanaam baat yi mu daan jëfandikoo léeg ngay dem bay bëgg dugg ci dara léegi mm-hmm. baat yi day ñëwaat say nopp day sone say nopp nga di ko nga di ko dégg ndax loolu bokkoon na ci yi nga xamante ne da ko daan def ba nëgë ni sax mag ñi ko xamoon te nekk njaareem sax bu ñu may xas ah. sa bàyyee la gën lañ may wax <laughs> waaw sa bàyyee la ëpp taalibe sa bàyyee la gën sa bàyyee la nangam uh-huh. eh, loolu nag euh, du xas waaye tagg la ndax daf may fàttali ne rek am naa baay bu baax bu fekkee sama yaay nag moom moom moo ñu yar Euh, ma nekk ak moom dund ak moom lu yàgg mu nekk soxna su jàmbaare mi ngi dund yàlla na ko yàlla yokk yàggal suñu kanam euh, su su su ñeme njaboot euh, dama koy nettali lu bari ci ay plateau di ko nettali ci buñ ma laajee ci wayjur sama yaay dafa daan xëy marché ba mu naaj mu door a am luñ togg man dama daan jëli ndugg nga xam ne man maay dem jëli ndugg mi di ko indi day mujj sama morom yi dañ may reetaan naan ma góor guy nduggi <laughs> maa ngi fàttali ko dama mujj di ko wax ne ko yaay léegi ndugg mi moom doonatul lu may eh, lu may def ci siwo ci mbuus lañ ma koy defal nga xamante ne li nga yor kenn du xam lan la te yooyu yëpp eh, ñun ñoo taxoon mu di ko def loolu sax tax na sama njàngum xam-xam ma boole woon ko di jàng métier hmm. eh, di jàng métier am téyër hmm. bi may ñëw Dakar fii damaa ñaw si woon jot naa fee liggéey ci ay atelier yu bari yoo xamante ne dama doon dama doon ñaw ndax nekk koo xamante ne soutien de famille nga war a doon hmm. war a jàppale sa wayjur wi nga gis muy tegoo yenn coono yi mm-hmm. loolu bokk na ci li ci amoon euh, rapprochement boobu laa am moom mm-hmm. ba léegi nii ma nga njaaree ma nekk waaye dama koy namm euh, ay bis gu jot danaa dem njaareem vendredi ci ngoon bu ma defut dara mm-hmm. faaw ma dem ci moom léeg-léeg ma dem kër ga sax am fa une heure de temps yàlla xam na ko waaye danaa ñëw toog ak moom léeg-léeg sax du ko mat 30 minutes damay toog mu xelil ma café ma jox ko sama siyaar mu ñaanal ma ma dellu si waat ndax euh, loolu mooy li nga xamante ne mooy li ma li ma am ak moom ci waral nga di ko fàttaliku tey ji mu doon sax lu neex. non man nag mettit moom bëgguma koo fàttaliku. Mhm. daanaka yi ëmb dara méttiwu ma. dara dunduma dara lu ma metti mhm. ndax xam nga ñaaray am ci booy fàttaliku li la metti mhm. nit a la koy def. te mën naa am daa juumoon. wala diggante bi yu bari dox na fi. boo ko fàttalee ci média du nekk à l'aise bu koy dégg. non non li nga dund ak sa yaay comme ça jaar jaar yu euh, waa ci jëm léegi boo ko boo ko fàttaliwut tam doon lu jàll itam jàll na bu fekkee sama yaay nag moom yi ma dund xam nga li ma la junj rek day tegtale loolu dund gu metti la maanaam léeg nga gis way jur muy sonn coono boo xam ne da ngay bëgg am mm-hmm. ba jàppale ko da ngay bëgg am ba teral ko léeg ma fàttaliku ko mm-hmm. euh, bi sama yaay dëkkee sama kër maam ci njaareem dafa mujjoon jóge ñu dëkk ci quartier ba foo xam ne mm-hmm. sëriñ Saaliwu Lo doomi sëriñ Mor Absa yal na ko yàlla yokku yërmande ak leer bi bi ñuy foofu dafa bàyyi woon benn espace boo xam ne dafa waxoon ne ku néew doole dëkk fi boo amee doole dem nga xam ne bari na nañu fa dëkk bari nañu xam ne buñ seetaanee waxtaan wi mhm. mën naa am masoon nañ faa dëkk ak seen way wayjur yàlla dogal na ñun kër googa dëkkoon nañ fa nga xam ne kenn tabaxu ko waaye da nga koy sàkket mhm. dëkk naa fa ba am soxna mhm. sama soxna wàcc ci kër googu ma dëkk ak moom kër sëñ Saaliw Lo mii di alxalifa moo yor sama yaay yal na ko yàlla yokk wér nga xam ne dañuy yendu ci kër gi bu guddi jotee Euh, ma leewu sama doom ñu ànd ñu ñaar dem fanaani fee bu bëccëgee ñu ñëw sama doom jigéen jooju li ngay wax ne loo ci dund méttiwul nag waaye dafa xorom pare doonum njàngat benn bis mas naa ñëw ne sama yaay maam hmm. lu tax lu tax koñ bi ñëpp dëkk ci këri tabax ñun ñu dëkk ci këru hmm. sàkket <laughs> nga xam ne ba léegi nii léeg-léeg ma dem fàttali ko sama yaay ne ko ne ko ne ko yaa ngi fàttaliku li la eh, sama doom ngir ma bañ a tudd turam sama doom jooju waxoon hmm. eh, yooyu looy fàttali fàttaliku la méttiwut nag dara dara méttiwu ci waaye ay lu may fàttali la rek ndax ki may seetaan it xam ne àdduna dara xëyut sotti donte donte dara sotteegut ci ñun luñ mën a wax ni lii euh, lu réalisé wu la waaye mën na maa sant yàlla ci ne eh, étape boobu passé nañ ko loolu ki koy seetaan tey xool mën naa am mu jàppe ci ne àdduna loolu lépp ay njàngat rek la waaye am maa jëmmi lu ma metti lu ma naan lii ak lii moom mhm. euh, li ma metti woon lépp maa ngi koy sant yàlla te di ko sopp li mu nekk bànneex alors mhm. am na solo li nga xamante ne moom moo di màggal gi oustaz dugg nañu ci naka nga koy préparé ak lan nga nu mën a wax ci ku tedd ki waa màggal gi de moom xam naa wàccaay moom mhm. daanaka at la bu weeru safar duggee moom ku nar a màggal ku ne da ngay xam ne màggal gi jot na nekkatoo ci wàccaay waaye at lañ koy waajal rawat na ñi nga xam ne dañoo war a màggal war a ami gan war a bokk ci ñuy bernde war a joxe ay xéewal loolu moom wàccaay la màggal gi man aspect bi ma koy xoolee léeg mu wuuteeg ñu bari hmm. ndax màggal gi dafa am aspect bu xumb bu ne ci kaw loolu hmm. amut benn woote bu bari mbooloo bu ci mucc waaye mu am aspect bu biire mooy ki ko doon def hmm. sëriñ bi ci boppam bi mu jógee Mbàkke Baari dem wuy ji tubaab bi Ndar jóge fa dem ci géej gi loolu yëpp danga naan sëriñ bi bi mu defee nangam bi mu defee nangam nga xam ne daanaka lépp da cee wéet. Mm-hmm. waaye bi cant gi jotee dafa woote ngir ñu santle ko yàlla. ndax yéene ñu ci xéewal yi ndax bëgg ñu bokk ci. bu yàlla nangoo ab liggéey. Mm-hmm. liggéey boobu day yokk day jëm kanam. te sëriñ Tuubaa moom borom bi subxanahu wa taala daf koo nangul. Mm-hmm. da koo nangul nangu euh, yonent bi mu ko joxoñ maa ngi koy dégg ci seex Muhammadul Muntaxa al Khalifa. wax ne. sëriñ bi moom yàlla rekk la doon wéetal bu amee kum ci teg mooy yonent bi nga xamante ne suñ boroom ak ko joxoñ mhm. suñ tubaa ne ko dann dem na sax ba ne ko at mi fukki weer la ak ñaar mhm. juróom benn weer yi damay julli ci yow mhm. juróom benn weer yi dama lay tagg waaye boole ci di la roy salaatu sitta bi matxi sitta taatihi batta maahtisaa yi ne ko ne ko juróom benn weer yii damay julli ci yow juróom weer yi dama la koy tagg waaye yëmul ci di ko tagg waaye mu ne ko maa tisaa yi dama ciy boole doon koo xam ne ku lay roy la ku lay roy ci lépp la mm-hmm. moo tax mu ne bi mu fanaanee ndakaaru fii mm-hmm. guddi googu bu ko fàttalikoo day bëgg a jël ay jaasi xeex mm-hmm. waaye mu ne su ma fàttalikoo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak ni mu doon baalee noonam ak li mu doon muñ nee na ma far leen baal isaa zakartu zalika al mabita wa dhalika al amira wa thabuta taarat ila al jihaadi bil armaahi nafsi walakin sabba anil maahi sabba anil maahi mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy dox sama diggante ak euh, jël jaasi di xeex ba du ma mujj doonati koo xam ne damay dem di xeexeek noonu yi kon màggalu Tuuba liñ ci mën a fàttaliku bari na waaye liñ ci fàttaliku daal mooy sëriñ bi dafa wax ne mhm. nañ ko ci sant la yàlla cant ñaari baat la mhm. benn bi mooy xamdu mooy cantuk làmmiñ mhm. alhamdulillah nit ki yëg xéewal sant yàlla sant gi sëriñ bi woote mooy as sukkuru mm-hmm. sukkuru mooy sant gi ay cër di def mm-hmm. euh, kii sant yàlla ci ay cëram mooy bu julli jotee mu bàyyi lim doon def julli kii sant yàlla ci ay xéewalam mooy xéewal yi ko yàlla def mu di ko waxtaane wa amma bi nihmati rabbika fa haddis mm-hmm. waaye sant yàlla mooy jaamu yàlla tukki bi sëriñ bi demoon ba tumuraanke ci bi muy ñibbisi dafa wax sama borom ne ko mhm. maa ngi lay ñaan sama tukki bi nga def ko mu nekk texe texe ñeel sama nation bépp waxul samay taalibe de mhm. waaye texe yi Sénégal yi yëpp texe yi jullit yëpp ijal rujuu yi ilaa xaw mi naa wal tak fi naa yow ma jam il xalqi niiraana yàlla yàlla na nga def sama tukki bi sama sama ñibbisi ji mu doon euh, mu doon xéewal bis ba nga xamante ne ca ngay dekkal jaam ñi waaye mu nekk ak texe d'accord am na solo alors lan ngay ñaax sax wala sax message booy sànni si ñi nga xamante ni ñoo dara ñoo nar a dem màggali muy ñi nga xamante ni ñoom ñoo di taalibe yi comportement yi ak lépp loo xamante ni aju na ci waaw bu fekkee li ma leen di ñaax de mhm. bu dee ci aj màkka la sama borom daa waxoon ne na ngeen yóbbalu waaye yóbbal bi gën ci yóbbal yi ngeen di yóbbal mooy attaqwa mooy yóbbalu ragal yàlla su fekkee ci màggal gi la itam li ngay yóbbaloo mooy yóbbalub kuy defi lu baax kuy jaamu ji yàlla daal day wuuteeg kuy dem ci xewu aada wala kuy dem ci suñu xew yii waaye day yëg ne dafa dem ci ak jaamu yàlla cant gi nag sëriñ bi moo joxe woon orientation yi lu yéemee ngi foofu ndax daa wax ne li tàmbulee ci ganaar ba ci gëléem li tàmbulee ci ganaar ci gëléem boo xool fi mu ne 18 la hmm. xam nga màggal fukki fan la ak juróom-ñett ci weer wi. sëriñ bi ne li tàmbalee ci ganaar ba ci gëléem. Mhm. boo jëlee ñaari tànki ganaar. Mhm. jël ñeenti tànki bëy. Mhm. jël ñeenti tànki xar. jël ñeenti tànki nag. jël ñeenti tànki gëléem. boo ko totaalee mu jox la 18. Euh, léegi nag comme sëriñ bi dafa orienté joxe loolu. nit kiy tuur deret di ko sante boromam subxanahu wa taala di ko santalee sëñ bi. kon loolu bernde la. bernde mooy lekk ak naan. waaye sëriñ bi daa waxoon ci masaalikul jinaan ne. ku lekk xéewali yàlla yi di ci fo bam rees hmm. suñ borom boole la ci ñu sàggan ñi dalay mere daa bëgg boo xéewloo ci xéewalam yi nga reesal ko ci jaamu yàlla mm. maanaam nga reesal ko ci jàng alxuraan reesal ko ci julli ci bi sallallahu alayhi wa sallam lee maanaam reesal ko ci ay askar loolu dafa bokk ci li nga xam ne moom la bëgg ko mm. am na solo alors ñu dem ci beneen actualité boo xamante ne mën naa ni sax du actualité question la boo xamante ni dañu ma ko yóbbante te ki ma ko yóbbante ñor na ko trop dafa bëgg nga leeralal ko ki nga xamante ni si dafay sëy mais dafa am nekkaale ba jël ci ëmb doom boobu noonu lay laajte kan moo ko jur <laughs> ak tamit euh, bu bu ki nga xamante ne moom moo di borom këram décédé kooku dafay doon wala du doon. waaw laaj la bu ñuy laaj ci pénc mi téere yi tontu nañ ci mm-hmm. yal na ko yàlla jéggal. Mm-hmm. bàkkaaram boobu ndax kuy sëy moom warut a nekk ak keneen. dëgg nekk rek moo baax waaye nekkaale baaxul. Mm-hmm. nekkaale comme bokkaale. dégg nga baat yi niroo kaale nekkaale bokkaale. nekk daal a baax ñaar ñu war a nekk nekk. Uh-huh. waaye nekkaale mooy ñaar ñu warut a nekk ba noppi nekk. nit dana am boroom kër mm-hmm. ci matadik doomu aadama mu seq góor gum sëyo gum gu ko tëkkut ba doom juddu ci mm-hmm. ñaari mbir mooy am mm-hmm. su fekkee bi mu amee ak doom kooku dafa noppi ne ci yàlla waxul kenn dara jëkkëram it waxul kenn dara même jëkkër ji bu xamee ne keneen a ko jurit waaye waxul kenn dara da koo téye ci kër gi téye doom ji bu boobaa doom ji santu jëkkër ji lay am te bu jëkkër ji faatoo da koy donn jëkkër ji itam day donn doom ji doom ji seen dooma ndax alwaladu lil firaasi léegi bu fekkee nag jëkkër ji dafa wax ne ko juruma ko mm-hmm. wala jabar ji ne ko juróo ko bu boobaa doom jooju du nekkati doomi jëkkër ji doomi doomi ka ko jur la moom ñoom ñaar kenn du ci doon sa morom mhm. hmm. mais sëy bi day valable toujours sëy bi moom mi ngi valable li feeg waa ji waxu ko naa la mhm. wala mu ne ko may ma naa la baat maanaam les bàkkaar la bu waaye mhm. lan la ko l'islam àtte moom ki nga xamante moo di soxna si waaw xam nga jigéen ju góor gu am boroom kër ba noppi jotee jigéen jum takkut ci l'islam dañ ko war a rey jigéen ju am borom kër jotee góor gum takkut góor gu ko takkut ci lislaam dañ ko war a rey léegi nag bu buñ dund ci réew mu mel ne suñu réew yi nga xam ne amul sens bañ rey ko amul sens laa ndax bu amoon sens moom dañ koy rey bàkkaar bi wàcc mu des ak borom rey bi mooy am sens buñ ko reyee waaw parce que parce que ah gannaaw borom bi moo moo moo tëral loolu mhm. ab jullit bu amee sens day dund ci fu ñuy àtte woolu yàlla bind nga xam ne bu ñu ko defee moom bàkkaar bi da koy daal di wàcc parce que loolu mooy teggi bàkkaar bi mhm. mu des digganteem ak boromam bu boobaa nag li ci def ci dundam mooy na ko rëccu mhm. na rafetal li ci des tey ñaan boromam mu jéggal ko. loolu mhm. mm. la ko lislaam àtte d' accord alors am na solo mais oustaz beneen actualité boo xamante ni si fan yi yëpp ñu ngi koy waxtaane muy ginnaaw bi nga xam ne Ousmane Sonko suñu moom suñu mbokku naataango yi posé nañ ko question comme quoi ñi nga xamante ni dañu nekk ci école yéen yi di muuru ñu leen koy tere euh, oustaz na ki nga xamante ni moom moo di Ousmane Sonko bi mu ci tontoo que nii euh, dina ci def loo xamante ni si nit ñi dootuñu leen indil benn problème mais benn abbé dafa génn tontu ko comme quoi Ousmane ko ni mu waxee waru koo waxee affaire reewanal wala genre naka nga jàngatee loolu. waaw lu am solo la question la boo xam ne maa ngi ciy artu ñëpp di ci artu sama bopp. moo tax bëgguma cee xuus lu bari. Mhm. damay faral di wax ne loo xam ne dañ ko war a waxtaanee. Mhm. Euh, muy lu technique. Mhm. ay article ak i loi war koo régler nañ ko régler. li war a doon débat public nekk débat public. débat bi dafa nekk ñaari xaaj benn bi mooy li jëm ci wàllu éducation kefe. waaye nag mën nañ koo solal mbubum diine. ba mu jur am ñaawoo ci suñu diggante ci sànnantee xeer ci diggante jullit yi ak ñeneen yi nga xam ne nekkuñu ay jullit te loolu gënut de defe naa ne du lu bees Ousmane Sonko li mu ci wax mm-hmm. depuis 2019 ak la ko jiitu lépp mm-hmm. débat bi mi ngi woon ci pénc bi Serigne Babacar Sy Mansour mii xalif général di Tidiane yëkkati woon na ci kàddu mm-hmm. mi ngi ci eh, mi ngi ci internet bi wax ci joxe ci ay xalaatam son ko nekk ab premier ministre nekk institution jàpp ne lii war na cee wax mu wax ci mu posé wu maa ngi doon xaar ku koy tontu. nga convoqué ay loi maanaam wax ne ah ñun kat suñu école dañu bañ ko fi muuru ndax suñu règlement intérieur nangam suñu constitution nangam mm-hmm. wala nangam wala nangam bu boobaa débat bi day yem rek ci fee yi mm-hmm. xam nga dañoo bëgg débat personnel jël jëlub débat personnalisé ko di wax ci jëm minute te loolu amul sens amul solo mm-hmm. li am solo mooy waxtaan ci li ñu séq rek waxtaan ci fee yi loolu nag jàpp naa ne euh, maanaam abbé bi hmm. dafa déplacé débat bi yóbbu ko ci personnel ma wax ne kilifa goo xam ne kenn mënu laa xas ci mpénc baa hmm. boog kenn waru laa xas ci mu mpénc hmm. ndax euh, ñi nga nekkal ak sa njaboot yow itam waroo xas kenn ci mpénc ndax yow itam ñi nga nekkal ak sa njaboot bu boobaa dañuy wormaalante dañuy bàyyante xel te loolu mooy li nga xam ne moo gën mm-hmm. maa ngi ñaan débat boobu ñu close ko ci débat public bi mm-hmm. bañ koo def mu nekk débat diine waaye ñu def ko débat éducation boo xam ne ministre de l' éducation nationale gannaaw école privée balaa am ci réew mi dañ lay jox mm-hmm. euh, ay këyit agrément euh, da ngay am règlement intérieur booy defar déposé ko nañ xool bu fekkente ne loolu yoon am na loi yu mu ci wax ak lu mu leen kii ñu artu ña nga xam ne ñoo koy bañ la ci war a am ci yoon ñu topp leen ci wàllu yoon te bañ koo def mu nekk débat boo xam ne débat public la ndax li mu yàq mën naa bari mm, d'accord mm. am na solo mais oustaz est-ce que tamit ki nga xamante ni jullit la euh, war na dem jànge fi nga xamante ni moom moo di ci école catholique yi ba jur problème ci li nga xamante ni moom moo di muraay beeg yu mel noonu est-ce que loolu l'islam bi reconnaître na ko non du du doon lu ñaan l'islam reconnaître na ko ak ñàkk rek xam-xam la moom l'islam may na nit mu jànge ko fépp d'accord kii jàng ngir xam mm-hmm. jàngut pas-pas bi jàngut loo xam ne pas-pasam la. Mhm. réew mi moo am programme boo xam moom la ñu waxee programme national. d'accord ñu di ko jàngale. am école yoo xam dañoo ubbi tudde seen bopp franco arabe islamique. islamique waaw di jàngale programme national bi di jàngale waale leneen. Mhm. am ñu tudde seen seen seen bopp école privée catholique. Mhm. di jàngale programme national bi di jàngale waale catholicisme ci biir. léegi ki nga xamante ne ñëw na di jàng. moom na jàng li nga xamante ne mooy national bi. Mhm. leneen li ci def mu bàyyi ko fa. wax naa ne nag réew mi moom 98 pour cent wala lu ko ëpp ñu ne ay jullit lañ ñu ñu ne. Mhm. bu fekkonte ne am nañ taxawaay bi ñu war a taxawee dëgg-dëgg duñ am jafe-jafe fu ñu jàngale suñu doom ba di leen yóbbu di leen bokk bokkalan ci koo xamante ne nii bokkoo ak moom diine ndax yaral ma te bu mu la nuru moom mënta nekk léegi nag loolu jar naa moytandiku bu mm-hmm. baax est-ce que mm-hmm. tamit buñ fa demee mën ñu jël jikko yi wala sax li nga xamante ne moom moo di éducation bu nekk foofu parce que tey ki nga xamante ne jullit la muy xale euh, nga yóbbu ko ci ñi nga xamante ne ay catholique lañ entre guillemets mën na jël sax seen diine parce que kenn xamul ki lay jàngal moom li nga xamante ni moom la lay jàng rek loolu loolu ngay jàpp mën naa bañ a jël seen diine nag ndax réew mi moom euh, wax dëgg yàlla loolu nekkut nekkut problème bi lool mhm. maanaam jullit buy génn ci diineem dem dem fee ndax njàng ma wala ndax nàngam parce que suñu suñu culture rek ni réew mi bindoo mhm. ak temps bi nit ki def ak ay waajuram fréquentation yi muy am moo ëpp temps bi muy def ci loolu mhm. euh, jàpp naa ne loolu mën nañ koo beralaat yeneen i réflexion yoo xam ne mooy gën a euh, ndax li may wax nii bu ma la ci toppee dañuy mujj yóbbu ko ci question diine boobu maanaam ci wàllu éducation yar ba ndax mën naa bokk ci lii ndax mënta bokk ci lii fi question bi yamoon daal mooy ci wàllu ki ñëw di jàng si ñu tere ko muuraay loolu du euh, maanaam école yooyu yëpp ñoo koy tere mm-hmm. dafa am ay benn benn seen biir yoo xam ne wax nañ ne ko fay bañ nañ leen artu wax ak ñoom seppi loolu teg ko na la dañ continuer mm-hmm. d'accord am na solo alors oustaz ñu gisoon la ci benn série boo xamante ne nag muy bété bété mais bété bété nekk na loo xamante ni sénégalais yi nag Euh, nga doon fa jàngale li nga xamante ne moom moo di diine mun nañ ko wax parce que tamit dañoo gis euh, thèmes yi nga xamante ni ñu ngi ko fay ñu ngi ko fay def euh, mooy que li nga xamante ni moom moo di xeebaate beddi woonte maanaam kii géwél de kii géel la wàllum naka nga jàngate mel noonu waaw xam nga théâtre moom ak suñu série yi ak théâtre yi ko jiitu yëpp daa war di mm-hmm. di refléter mm-hmm. li nga xam ne moom la société bi di dund d'accord buñ ko deful rek waxuñ ñu mm-hmm. Euh, thèmes yi ñu fay waxtaane ñoom mu jëm ci wàllu caste mm-hmm. ak yi nga xam ne moom lay yàq ak jafe-jafe yi muy dund yi mu mm-hmm. am defe naa loolu mooy li Sénégal gépp di dund ci côté yëpp xale yu jigéen ya nga fay yañ fay wone mm-hmm. ñu am kuñ bëgganteel ñu ne duñ la ko may ndax bokku leen xeet déet bokku leen xeet ah, la ñuy wax ñoom bokku leen xeet euh, wala xale bu góor bu nopp ku jigéen ñu wax ko loolu loolu mi ngi am ci pénc mi man mi nga xam ne nit ñi dañ ma woo di ma wax mhm. ay question société mhm. di la laaj ay xalaat wala laaj ay conseil du ma dugg semaine boo xam ne aw ma problème bu mel noonu sama mhm. bàyyi nangu maa maye wala man ki may bëgg nangam wala sama yaay opposé na wala nangam wala nangam mu indi yu baree bari ci famille yi loolu ñoom ñu def ko série mën naa doon aspect jàngale ndax ci série bi message yu bari mën na faa jàll te ñu bari dañ koy seetaan yàlla defal leen ci réussir nag bu yaatu boo xam ne maa ngi leen ciy ndokkeel bu baax mhm. euh, Ibou Guèye mi jiite kër ga mhm. ba ca ki gën a tuuti euh, ci message yu fort yi nga xamante ne joxe nañ ko ci ak ni ko sénégalais yi di consommer mhm. ak ñu ci jàngalee lu jëm ci wàllu culture bari na lu fay jàll loo xam ne mën nga koo yóbbu ci ayab alxuraan firi ko wala nga wala nga yóbbu ko ci hadis firi ko ñoom ñu solal ko mbubbum sénégalais yi ba sénégalais yi man koo jariñoo loolu nag moo tax man ma jàpp ne kuy jéem a góorgóorlu ci diine la mhm. fu ñu ma woo ma man faa jàllale message ma dem fa jàllale ko mhm. moo tax épisode yu njëkk yi ñu gis ma ci yu mujj yi ñu gis ci sama xarit Oustaz Modou Fall mhm. yaakaar naa sax ne moom bu buñ ko njëkkoon a am duñ ma duñ ma ci soxla ndax euh, liñ ci soxla euh, ni ma gis mu jàngalee ko firi ko ak ak ni mu déggee jamono euh, message boobu message yu leer a leer a la yoo xam ne moom it ñu ngi ko ciy ndokkeel moom Oustaz Modou Fall ci oyof mu am ak bañ a seexlu ngir mën a jàngale ndax ki seexlu gone doo ko raxasal sobeem ki soxlu ki seexlu am pénc tamit doo fa mën a joxe message boo xam ne amal na leen njëriñ mm, d'accord alors lan moo waral que ñu changé la indi oustaz Modou wax ni am problème foofu moo tax ñu jëlee la fa indi oustaz Modou Fall leeralal lu mel noonu dama am problème fan even pro waaw <laughs> déedéet aw ma aw ma aw ma aw ma ñoom nag benn problème wax dëgg yàlla mm-hmm. parce itam yaakaaruma sax ne danañ danañ am problème nag hmm. donte problème dafa sew waaye yaakaaruma ko daal ndax man li war a indi problème foofu gisuma ko hmm. ndax ñoom dañuy ay liggéeykat yoo xam ne ñu ngi ci seen milieu di liggéey hmm. ma nekk ci milieu bu nuróog bi ñuy def ñu bokk di jëflante xam naa manoon naa cee bañ a àgg waaye ñoom danañ ko xam laataa sax ñuy woo Oustaz Modou Fall di ko wax ne ko sax na suwee woo nañ ma téléphone d'accord ne ma séquence tel tel parce que damay waxtaan ak ñoom ci yu bari dañoo bëggoon Oustaz Modou Fall ñëw tourné ko d'accord tey ñi xam tey liir danañ xam ne maag Oustaz Modou Fall du ñaari nit maanaam nit la koo xamante ne ñoo bokk yëf yi muy sama rak mhm. waaye danañuy déggante danañuy gisante euh, kon bu ma koy tënk daal dama naan au moins ñoom benn problème mhm. du woon liggéey bu contrat tënk bañ may dàq <laughs> déedéet du woon liggéey bu ay intérêt àdduna yi tënk ba nga mhm. xamante ne da dama koy sori mu may mu may jafe au contraire su ma sañoon du ma génn ci benn série ah waaw su ma sañoon ah. du ma génn ci benn série waaye nag am naa ci ay idée am naa ci passion itam te am na lu ma ci yàlla may. Euh, bu ma sañoon Even Pro dañuy jël koo xam ne man na ko. Mm-hmm. ñu woo ma ma ñëw jox ko samay xalaat. maanaam tey ma ñëw bokk ci ñi joxe seen xalaat te ne ci ginnaaw. te bañ a génn toog ci image bi doon koo xamante ni damay damay dama ciy joué. loolu nag du lu ma jàpp ne dafa bon wala dara de déedéet kon du ci génn sax benn ma jàppoo ne dafa bon. gisuma ci benn défaut mais dama jàpp ne. man na maa joxe message feneen te am ñoo xam ne foofu mën nañ fee joxe message yu yaatu. Mhm. benn mu nekk acteur wala mu doon nitu diine ku ma ko gën a man comme ni ko Oustaz Modou faal defee te réussir ko. Mhm. te ma jàpp ne bi ma koy seetaan. bu ma toogoon du ma def plus que lii au mm. contraire kii moom a ko gën a man te sénégalais yi bëgg nañ ko te da ci yokk benn tous boo xamante ne nit ñi dañ ko gën a seetaan te xam nañ ko aussi man xamuñ ma <laughs> bu a baax voilà léegi léegi yëpp daf ci lu bare bari non non loolu naa ne <laughs> euh, nee baax na baax na lool te itam amuñ ci benn problème d'accord mm-hmm. alors oustaz waxtaan bi neex na sax li ma la téye bëri na jëf voilà waaw li nga ma téye bëri na moom <laughs> bu am na loo xamante ne bëgg nga ko jàllale te laajuma la ko rek nga jàllale ko waa beneen yoon boo ñëwaatee ma jàllale ko <laughs> tey moom liñ jotee jàllale defe naa ne laaj nga ci lu baree bari <laughs> tey itam lépp am na solo <laughs> euh, ñu ngi la ciy jaajëfal bu baax a baax vraiment euh, kontaan ci dalal la ndax itam seen njàmbaar ci seen liggéey jéegulu bu baax nag ndax léeg ñu xaw a invité ah. ci laay jaaraale jégguluwaale ñi yor seen yëpp te dañu seetaan <laughs> ndax mën nañoo jàpp ne dama leen a beral loxo <laughs> waaye yaa war a wax moom wërta tax ngay wax loo xamut maanaam bis set nga def émission bis set nga génn ci seen bis set nga wax nangam mhm. te li ngay wax ci pénc mi ñu gën la koo xam loolu ñàkk respecté ñi lay seetaan mhm. <laughs> ci li nga xamante ni moo di disponibilité bi et puis waxtaan bi am na solo yow sama xarit nga waaw ah, dëgg la loolu am na loolu am na voilà la ni day jariñ société bi di jariñ ñi nga xamante ni ñoom ñoo lay déglu parce que gémmiñ moom bu waxul lu baax tamit wax savane ba te tout temps dañuy ñaan yàlla suñu borom rek euh, mu wax ñuy wax li nga xamante ni loolu la suñu borom gërëm ba kuñ ci mën di critiquer tamit ñu mën di continuer li nga xamante ni moo di suñu yoon voilà di gërëm Ibrahima mi nga xamante ni moo nekkoon ci caméra bi ak mbokk internet yi nga xamante ni ñoo ñu topp saa su nekk rek di ñu